waaw gis nga ko marché Kaolack waaw marché central mu ngi nii lakk de waaw lakk gaa ngi nii ay boori minuit daal minuit trente ci la commencé lakk fi mu ne nii waaye sapeur boobu yi mënuñ ci dara gis nga suñ place tàkk na ba jeex gis nga ko nii gis nga ko nii suñ place yi def ni mooy def nii ay boori minuit la lakk gis nga boobu yi dara Ousseynou. gis nga ko nii lakk marché central Kaolack mooy lakk nii côté fëgg jaay bi nag moo fi gën a fitti moom place fëgg jaay bi moom dara dara des fi moom fëgg jaay moom dafa lakk ba jeex takk takk takk takk fëgg jaay moom benn benn benn place moom desu fi moom waaw gis nga ko nii fii ne min bi jot na une heure une heure minuit une heure gis nga ko nii sapeur mënatu ci dara ëpp na ko doole man am naa fi ñetti place waaye benn morso génnewu ma ko lépp lakk na ba jeex waaye nag loolu la yàlla dogal yàlla moom lu mu def ci jaam rek loolu dafa gën xanaa sant yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin moom la ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax